Pape Malick mbay la Golden Boy des Nabiens Pape Malick Mbaye caatu góor gi alxaaji Mbaye doon de Mbaye mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu kooku mooy caatu góor gi alxaaji mbay doon da mbay ci sañse bu rafet bi borom xolu jamono bi mu ngi noonu mbokk yi nag ñëpp ànd ñaanal ko yàlla mu gudd fan loolu téwér ci barke yonent bi ndax mission bi nga xamante ni moom la bàyyi bi bàyyi woon fii di góor gi alxaaji mbay doon da mbay moom la Pam Mbay caat war a yeggale fépp fu turu Maodo bi yeggul ci àddina alxaaji Pam Malick Mbay war ko faa yeggale mook njabootu góor gi alxaaji mbay doon da mbay groupe bi muy àndal Pam Malick yi mu sañse ni sañse bi rafete xol bee ko gën a rafet alxaaji Mbégi Jóob ak mam ndox ci biir mbokk yi fii tey ci Tiwaawan ci kër Cheikh Seydil Hadji Malick Sy ki ñu leen di présenté mooy le golden boy des Nabiens Pape Malick Mbaye alxaaji Mbégi Jóob ak mam ndox ci biir ñëpp ngi ànd di la ñaanal yàlla nga gudd fan loolu téwéer mbay moo reew kumba moori maca banjul sàkkeen de njaay mbay caatu alxaaji mbay donde nit ñi bëgg nañ la tax ñu bëgg nañ mooy sa xol bu rafet ñu ñëpp nañu ànd kenn ku nekk jàng benn jëwharatul kamal ñu yéene ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko yàlla mu gudd fan loolu téwéer jërë ngeen jëf